<laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi di leen wax ngeen koy di abonné partagé gaa yi gaa yi <laughs> dafa am benn waaju ma gis man nag sans problème mooy waaja xaw ma turam wax dëgg yàlla man xaw ma ko ci gars yi xaw ma ko ci ñi nga xam wax dëgg yàlla dañuy talax lax di layam layam ci biir plateau yi di ràkkam rakkam di wër di fen xamee mu ko ci wax dëgg yàlla. Euh, moo tax xaw ma turam exact xaw ma turam exact moom wax dëgg yàlla man xaw ma ko euh, yéen ñi may seetaan bu ngeen ko xamee dóoral leen ma turam ci commentaire wax dëgg yàlla na ci am solo soxla naa turam beneen bi ci topp nee na dafa am lu bëgg a leeral man xaw ma ban parti la bokk nag euh, vraiment topp naa vidéo yi topp topp ko topp ko mais man xaw ma ban parti la boo exact man xaw ma <laughs> xaw ma daa bokk ci famille naa bokk rek bi parce que ni muy waxee daa mal ni daa mal ni daa bokk ci famille naa bokk bi de <laughs> dafa am ay mbir yu mu bëgg a leeral nañ ko déglu mu leral waaw bo Paske ñun ñu leral na nga fexe ba li ngay wax na leer nak parce que yow ni ma la gisee liif nekul sa bop bi tous xamoko waye nak na la déglu nga leral ci wa ak wa baatiman dama am leral yu ma bëgg indi. ñun kañ lañ ñu dakk euh, yewé askan bi bu parti ñoo daje ñu parce que dañ dem dialogue mais dañ wax ak Macky Sall. <laughs> dama ni Khalifa. naa bokk rek xanaa mbokk xeet woo wala bokk bu fekkee xaw ma ci xeet woo bokk waa parce que man topp naa say vidéo wax dëgg yàlla xaw ma parti boo bokk waaye euh, bu fekkee ah bu fekkee parti Baye Khalifa bee xaw ma nag ban parti la wala moo xam parti bu ngeen mën a bokk euh, bu ngeen gisee ñu génn leen Yewwi Askan Wi xam naa da ko xamul dinaa la ko baaxee parce que euh, dafa am ñoo xam ne dañoo nekkoon biir Yewwi Askan Wi di nettali di fenn di wër di fenn lu yeewu biir yeewee askan wi ñu génne ko ñooñu nag dañ leen a segg lay leen dàq leen xaw ma nag ci xeet woo bokk waaw yeewee askan wi moom kun fa dàq génne la fa rek ay fen a tax ñu génn nittali ku ñu dàq yeewee askan wi nittalee tax ñu dàq la yeewee askan wi te yow mii ma gis daa mel ni doo yoro waaye ci pël yi nga yow mii ma gis a ngi mel ni ku war na yorox laan sol sa yére bi mel ni ku yor toolu mboq <laughs> di wër ci plateau yi di wax loo xam ni te maîtriser wul li muy wax. ñi taxawon na ñun dañu dàq ci yew askan bi parce que dañu wax ak Macky Sall kon buñu ñu doon xool ku wax ak Macky Sall rek kon yew askan bi kenn du fa des dañu wara a présenter ay excuse la preuve démb amna na incident bu am Farba Ngom taxawul fi yew askan bi ñu fa gëna a rëy ay dambo ay euh, kii tiré euh juge Babacar Seye ba ñu defal ko amnesty mu ne koku toog ak Macky Sall te ba léegi wéddu grand boobu mu tuddati. <laughs> waaw waa ji nag tawaay saa yi gars yi gars yi kii gum yàpp nguur si kan la yàpp man kii ku may dimbali ci turam ngir yàlla yow dinaa la jëlaat yow di nga dem ci wasaayiran mais dinaa la jël sa tur faaw ma xam ko sa paxi bakkan say nopp may wax mu naan grand boobu léegi grand ban nijaay nijaay di nga ma wax grand ban la de di ma wax kan la mu tuddati. ah. <laughs> kii ndax du ma ko tuddee bàyyi nu mu tuddati <laughs> ngóor si ngóor si ndax ndax du ma ko tuddee bàyyi nu mu tuddati bàyyi nu mu tuddati na nga def ak coono euh, naka tarax la réew mi bàyyi nu mu tuddati am nga jàmm mbaa kenn yebu la euh, maanaam damaa bëgg man booy dem ci plateau di oser bay toog ci plateau ñu lay interroger ngay wax maanaam nga maîtriser li ngay wax xam ñi ngay wax aussi ñan lañu parce que yow déjà yow ki ngay waxal sax xamoo turam kon déjà yow. sénégal ñuru la yow dama yakkan da nga bok ci ñi wër di fenn xawma ci nga bok waye nuru nga do yoro way ci peul yi nga yow mi tok plateau may wax ngay wax lo xamni di révéler di wax lo xamni yow sa bop maîtriser woko xamoo dara ci li ngay wax ñu laaj la kan nga naan num tuddati baye num tuddati nga def ak ciona baye num tuddati di ma wax tur wi ci wa jairan ak wa batiman señ bi ki ngay wax num tuddu mu tuddati ah ñooñu yeewi ak ñooñ fan lañ bokk si opposition bi mm. donc ne logique pour logique dañu ne ñun dañoo wax Macky Sall motax ñu dàq ñu yeewu askan ni na def réunion xol ñepp ñi wax ak Macky Sall ñu dakk leen en commençant par Ousmane Sonko. parce que Macky Sall. Ousmane Sonko mo la wax ak Macky Sall. way ku Ousmane Sonko waxu ko de mais ki ki ki yëpp ki jël yobbu jël indi moo moko wax até moo moko wax. gaay yi dégg ngeen góor si euh dugg na ci débat bo xamni déjà ma ngay fen maîtriser wul limi wax ñu insister mu taxaw ni père até Atepa moko wax neena bay até pa Atepa euh, mo mo mo ni euh, Ousmane Sonko wax nak euh, Macky Sall bay Atepa pa moko wax até Atepa mo taxaw yow ni la Ousmane Sonko wax nak Macky Sall até Atepa mo la wax loolu ci ban vidéo ban dat ban jour ban heure jeuf ak sa gemingu moko man nga fente do wax deug Sénégal ni lañ koy bay ni lañuy ñuy rew mi ni ponkal <laughs> mu tok sol sa dara melni ku yox toli mokk melni ku ay poussin <laughs> senegal senegal lu fangi fi barke alquran di talakh laxa ci rewmi bis bu ne daga ci ñak bi ñu xamni lepp deug la mom ma ngay wax lamiy wax sax metti dèjà kon yow bu fekke ay fena tax ñu génnee la wala dañ la jinn ni la da ngay nittali moo tax ñu génnee la yeewi askan wi yow bu la ku la génnewul nga tal rewmi di yow kay yow mom génne la yau askan wi yoon la yow yau la yeewi askan wi yoon la deug la logique la yow ku la gennewul tay na la genn suba parce que do wax deug parce que li ngay wax ni du zaahir du baatin du logique du deug déjà yaangi wax ñi ngay wax xamoo sax seeni tour xamoo sax seeni tour xamoo sax ñi ngay waxal ñan la xamoo sax ñi ngay waxal ñan la ngay talax laxe di ratatati di ratatati nan Père Atepa moo ko wax yow Père Atepa mo taxaw ni la Ousmane Sonko da tok da tok ak Macky Sall wax ak moom te yow ah, dama koy laaj mom xana seetaanul dialogue bi xana seetaanoo dialogue bi ngay yor saw lamiñ melni ku lu may baña tuddu bay Ali sen duñ ko poser question bobu newu la ci bopam man waxuma ak Ousmane Sonko waxula lolu ba yegg sax ni man Ousmane Sonko mosuñoo joko telephone lolu ay faux la yow nga oser yow dik taxaw fi ni Père Atepa guja bi nee ma Ousmane Sonko mi ngi wax ak Macky Sall mais on est dans quel pays wa ki kan la ki kan la ki turum la soxla ki kan la ak doxam ni bosu nak <laughs> barke yow mal xuloo jël basar gis nga Sénégal li fi ne Sénégal li fi ne fen yi na ci réew mi fen yi na ci réew mi man fen yi na ci réew mi man laax noo Sénégal nag réew mi moom boo bëggee dégg-dëgg non yow mal bu ñuy juger Sénégal moom man fee laay taxaw fee laay taxaw damay lànk ni Cameroun laa dëkk yow mal xiyaam bu yàlla taxawee bay juger Sénégal dama naan ko man Camerounais laa je suis un Camerounais je suis un Camerounais parce que man li ma gis ci réew mi moom boo bëggee dégg-dëgg non bu nu faatoo dem yow mal xuloo jën basar du chef Sénégal moom bu ñu koy regle man yàlla naa doon Camerounais jour boobu doon ab togolais ma koy gënal réew mi damay lànk ni ma fi xoolal ma kii li muy wax fabriquer ay paroles créer ay wax maanaam waa bëgg a siiw la wala lan la noo barkeb réew mi nag barke yow mal xuloo jël basar bàyyi sonkoo ko yor non barkeb réew mi bàyyi sonkoo ko yor parce que ku xëy bëgg a wax te waxoo ci Baye Sonko kenn du la déglu kon loolu encore une fois damaa bëgg sénégalais yëpp d'accord ni Baye Sonko mooy borom Sénégal non Ousmane Sonko mooy borom Sénégal Ousmane Sonko dégagé na bépp xeetu actualité bu nekkoon ci réew mi moom usman Sonko moo képp bës bi ku waxul ci moom la ngay wax safewul léegi nag pour nga wax ci moom te maîtriser woo sax politique yow maîtriser woo sax langue politique yow kan moo ko wax xalaa grand boobu grand boobu journaliste yi ñooyay ree la ngay ngandal bop sey ni xëtër kan moko wax grand bop ñaata grand ci rew mi ya combien de grand dans ce pays ya combien de grand dans ce pays yow kep kuy grand la wala porte pelé yow fim ne man sa pelé le mu dug yow mom na la pelé parce que grand yi dañoo bari ci rew mi grand ban est ce que waxoma yow yow yow yow ndax rew mi dun la pelé nga nan grand bop yaa combien de grand dans ce pays nag wax dëgg yaay grand ci nga de est-ce que du yow eh, est-ce que du yow laa est-ce que <laughs> Sénégal li fi fenn noo Sénégal li fi fenn Sénégal li fi ne non Sénégal réew mi noo jar na mise en jour noo damay leen naan réew mi jar na mise en jour dama ciy delluwaat encore une fois il faut que ñu télécharger bàyyi Sonko installé ko palais réew mi soog a am jàmm ba pare tegu ci yoonu siraatal mustaqima Sénégal politique yàq na réew mi ku jóg di wax. 2019 à nos jours li ma fi xam ci chroniqueur yoo xam ni takat euh, man xaw ma buzz lañ bëgg xaw ma dañoo bëgg a siiw ku jóg tudde sa bopp chroniqueur ku jóg tudde sa bopp wax kat ku jóg bëgg a doon spécialiste ndax lañ bëgg a siiw takat ay bêtises la ñuy wax pour siiw kan moo ko wax garant boobu yow ban parti nga bokk bu fekkee parti Baye Khalifa bi la naa bokk rek ñooñu ay nettalikat lañ te dañuy wor parti bobu dak nan ko yag na daw ca taw metti lan dakon parti bobu parti bobu dun wax deug dañuy netili ta bir pastef euh suñuy message ak suñuy waxtaan ak suñuy dugg ak genn yoy dañ ko soxla privément ay secret la manam ñun téme sungu fa téme sankal arranger wuñ ci parti bi di pastef fi ku fi netel dañ lay rajé ci wa jairan ak wa batiman nala aduna bepp xam ngay dox ci baye sonko di ci wax lu bax buñ xamé ni da ngay dañ lay rajé dañ lay dak voilà ñun bu fekkee yeewi askat wi la bu fekkee parti Baye Khalifa bi la ñooñu dañuy nettali ba pare dañuy sos ba pare dañuy wor ñooñu neexu ñoo àndal xaw ma wan parti nga bokk nag parce que man xawma la ci làngu politique man dama laa maîtriser yow sa jëmm jëlaa laa maîtriser wul. sa jëmm ji laa wul ci boppam ngay mel ni jargoñ na nga def ak coono bay booy naka talax lax réew mi ah ah lii lii métti na nag ah. นี่ตีเลยเรีกแฟนแฟนแฟนแฟนแฟนแฟนแฟนแฟนแฟนแฟนอืมน่าจะฟักจอน